violence faite aux femmes nekk lu ñuy faral di gis lool ci jamono yi waaye itam am na ay góor yu ko naqarlu lool ba di ci sànni seen i kàddu ñu déglu leen ci micro Thierno Kane. moi je suis contre quoi parce que c'est pas normal de frapper euh, de faire quoi que ce soit pour les femmes parce que c'est pas normal les femmes ce sont nos mamans et en tout cas moi rafetlu ma ko d'accord ma benn yoon ñuy dóor jigéen ñi ak leen def leen parce que jigéen ñi sont des références. laaj nga am solo jamono tey dañ dafa dafa doy waar ndax violence au jour le jour da ngay dégg ay violence yoo xam ne lu yéeme la ca li ci gën a yéeme mooy dafa gën a récurrent au niveau du Sénégal te bu njëkkoon da daan toog di dégg violence muy am ci yeneen réew yi ay xeetu rey yu métti ay xeetu méttital yu métti ñu koy def doomu aadama yi ci réew tugal yi waaye léegi Sénégal chaque jour boo xëyee du ma ne benn du ma ne ñaar dañuy cité ci journaux yi des cas de violence ci violence yu gën a ñaawee nga ko gis yi ci ëpp nag jëm ci ñi nga xam ne moo di jigéen ñi ak ci tuutànk yi muy couche bi nga xam ne ñoo yore développement te ñoo yore économie am réew ndax tànk mooy màgg mooy jàng mooy tekki mooy yor avenir u réew. mais tamit façon Sénégal loo gisee en violence yi ñuy def jigéen ñi suivi du am tey jii dañuy demander. justice mais malheureusement duñ ko def comme ni ñu ko defee loolu le problème le premier problème loolu la te on doit protéger les femmes de telle sorte que kenn du leen ñemee di dóor deen leen xoqutal parce que jigéen ñi tamit ñu ngi sonn si biir si biir si biir kër yi dangay gis l'inceste lu ne lay am lu mu ngi xew si biir ak menaces yoo xamante ni tamit kenn mënu ko wax si biti te loolu lépp jigéen ñu ngi koy dund te loolu tamit pour man tamit manque de de considération la rek moo waral loolu. jigéen kenn ku ne xam na ni mooy mooy euh, pilier wu développement tey bu ñu wax développement ci jigéen lañ koy jaare waaye ñaari couches yooyu tey malheureusement mu ñooy subir li gën a metti ci violence yi nga xam ne moom la ñuy dund ci réew mi damaa jële la dóoree fab sa soxna di ko dóor fab sa rakk di ko dóor waaye violence bi ñuy def violence sexuelle bi nga xam ne dañ koy def. mu de façon morale nit nga am affinité ak sa jarbaat ci sa biir kër xëy na jekk na xëy na taaru na amoo benn gis-gis bu nekkitu moom bu dul di ko tëddee di def du ko def lu nekk yàlla suñu borom dogal mu nekk nitu kersa wala mu nekk nit koo xam te ni euh, xam na ni famille bu bu jógee àdduna tukki mu nës nësal yaay yëg bàyyi yëg ñëpp yu nës nësal kenn du dénoncé affaire bi nag di gën a jël de l'ampleur kooku di am courage def ko keneen def ko keneen. mënu ma leen a conseiller comme ku wérul mais tey mënu ma leen a ku wér mentalement à 100 pour cent parce que da ngay gis parfois koo xamante ni day mën a day day violer benn jarbaatam est-ce que une personne normale mën na def loolu violer sa jarbaat wala da ngay gis koo xamante ni àttanam mu tëdd ak jabaru magam tey personne normale tamit est-ce que mën na xalaat xelam man na nekk sax jabaru magam wala jabaru papaam te yëpp ñu ngi gis si si bi pour man daal. mënuma leen a consider à 100% des personnes normales. manque de sanction bi nga xam ne moo am ci violence au niveau nationale moo waral tey ji Sénégal violence bi di continuer di am et je pense qu'aujourd'hui xëy na autorité ñi ngi ci def lu ñu man waaye population yi ci boppam dañu war a jël mbir mi à bras le corps di ci sensibiliser non seulement mais aussi di jàppale autorité étatiques yi ak aussi juristes yi ci di dénoncer parce que sans sans la dénonciation mbir mënu dem fenn. parce que aussi nit ki mënoo faj loo xamul te malheureusement ñun population yi ñooy nës nësal ñooy gëmm ñooy ñooy ñooy jéem a régler ci biir famille au détriment de qui de l' enfant l' avenir du pays de la femme le plus du développement. te ñu gën a responsable tamit parfois tamit feeb bi day jóge si ñoom parce que feeb day jóge si ñoom à cause des simples fric xaalis wala yooyu noonu tamit parfois day gis loolu da ciy am mais euh, pour man daal. Euh, conseil bi ma leen jox mooy jigéen ñu gën a xamaat seen bopp xamante ni tamit jigéen ñi ñoom ñoo ñoo yore réew mi su baaxee ñoom la mais tamit euh, su bonee tamit tamit beneen beneen sens bi tamit day ñëw. en tout façon daal jigéen ñu gën a responsable xamante ni ñu seen ginnaaw ñun nous nous sommes derrière vous vous êtes nos mamans et nos loolu métti la yi ci des itam mooy xale yi nga xam ne Sénégal boo xëyee il suffit nga génn sa mbedd rek doxal cent deux cent mënoo dox cent deux cent mètres gisoo xale bu ñu bundu xataal soit ñu koy liggéeyloo liggéey mu attanoon soit ñu mu mu mu nekk ci ci ci ci toroxtaanga gu metti te loolu lépp violence la ak yooyu nga xam ne yoral nañ ko xale yi ay mbir la yoo xam ne parce que société bi dama au delà delta société bi nga ñoo nekk ci bas échelle bi ñoom ñoo war a jël à bras le xeex boobu fexe ba wàññi violence bi ñuy def ci biir réew mi parce que violence amul solo